ci ndorteelu atum 2022 bii ñu dugg bo amee loola maskan wi moo di grève gi jàngalekat yi sumba boobu ak léegi ñeenti weer ca ndorteel lu ko sooke moo di SAEMS ak CUSEMS ñoo taxaw tem ni seeni période di indemnité faw nguur gi xoolaat ko ni ñoom ye yeneenu koor ya yellool ñoom it waruñoo pété ginnaaw donte ay daje am na ngir waxtaan daanaka loole sotti wut laaj gi ci toftalu kañ moo di ci jàngat li di laaj ndax gafa réew mi antan na ko lii lee jur na yeneen i ñaxtu misaal gi di ànd gëzëm feelu ci wet gi di waajal ñoom it waaye lu leer ba des moo di coomu àdduna si daal lompoñ ndax coronavirus bi la mu yàq ci koom daanaka naxal na ay réew yu bëree bëri rawatina yi gën a ndóol ni ki réew waaye góor gi moom it kenn demul mu des ba ca jéemoon dara ca njëlbeen nga amaana dina am saafara tey jii lépp lu yittewoo borom kër daanaka yokku na du courant du ndox ba ci leneen bu ñu it pate ne même réew saa su élection dikkee ñii ci nguur gi du ñu noppee di daj ay chantage. Sëriñ Saliou ci mbas sañu nekk ci ay jafe-jafe itam ci wàllub koom ndax gafa ga euh, nguur gi permettre na ko yi sàkkuteef yi yëpp mu matal ko. moom mais xam nga nguur gi ci boppam moom mooy euh, wane boppam. Mm-hmm. parce que fan ni ci ginnaaw gis nañ ne y a des yoo xamante ni agent ya fay liggéey yokkal nañ leen ay indemnité mm-hmm. du benn corps du ñaari corps. Mm-hmm. peut-être mën naa trois corps yoo xam ne xam naa leen yoo xam ne dañuy xëy ñoo kan leen des indemnités. yoo xam ne dafay jógee trois cent mille ba cent cinquante mille. Mhm. léegi loolu yow nga def ko nga bëgg a taxaw ne nga ne dëkk bi amul xaalis. Mhm. au même moment ñu gis xaalis bi ñuy jël di ko dilapider ci biir dëkk bi. mais loolu moo tax aussi yenn secteurs yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ils sont lésés par rapport à la rémunération dans la fonction publique. muy enseignants corps yi nga xamante ne affaire bi dafa leen léser li wóotoon na mooy ñoom duñ ci dellu ginnaaw mm-hmm. te je crois que loolu c'est une question légitime boo xam ne ñoom dañ ci war a wax mm-hmm. lan moo tax tey ñi nga xamante ne da ngeen a nekkandoo fonction publique ngeen amandoo les mêmes diplômes les mêmes certifications académiques ñii di fayeeku benn salaire boo xam ne c'est supérieur une fois ou deux fois yow sa salaire c'est-à-dire ba léegi loolu mën nañ ko expliquer nit ñi mm-hmm. au lieu que ñu fajal loolu déedéet dañuy dem di fajal leneen mi ngi mel ni nga ñëw ci docteur ne ko sama bopp day metti mu ne jox ma sa tànk ma xool loolu je crois que ñoom loolu la ñuy actuellement loolu la bi lan moo koy metti ñu ne garab yi ngay jël traitement bi ba keroog ñuy egsi fii mm-hmm. je crois système de rémunération bi toll na foo xam tey il faut ñoom ñu am courage wax ci waxuñu dinañ des solutions immédiates mais au moins nañ taxaw ñu waxtaan ci mais ba leen nangu ñoom nangu ñu ci yey yàbbi mhm. léegi nag commencé na étendre euh, ñoom ñu ne système de rémunération mhm. bu demee nag ba généraliser au niveau de la fonction publique su boobaa danañ xam ne dëkk bi aussi golo du bay baabu ndundee du ñu jël une partie tout simplement ne parce que ñii sam nombreux dans leur corps ñii c'est des parties euh, donc partie infime yi ñoom ñooy jël tous les privilèges ñi nga xamante ne ñoom ñooy duñu leen duñu leen jox dara mhm. nguur gi daal seen wàll ñoom li nga xamante ne ñoo fi moo fi am ñoo ko def réew mi su fekkee amul xaalis na ko ñëpp yëgandoo mais nag amul xaalis ba pare boo xëyee nga yokkal ñi yokkal ñi bàyyi ñi tànk loolu bàyyi gënlante bi bu ñu ko bàyyiwul problème yi du fi jógee. Euh, justement Ndeye Dimet tey koor yi warul euh, dem grève rek ñoom ñooy nekk di ñaxtu ndax bu ñu ci demee muy njàng meeg njàngale mi di ñuy nekk koor docteur askan wi dañ koy yëg bu baax a baax tey est-ce que problème priorité amul euh, ci côté nguur gi. xam nga li ciy gën a doy waar mooy politique de pourrissement bi état bi nekkee parce que dañuy dégg benn secteur bu yëngatu ñu xam ni secteur bi c'est stratégique bu ci mel ni njàng mi ak njàngale wala paj mi mais du ñu ci jóg dox ci wax ci pour que liggéey bi jaar yoon mais dañuy bàyyi ba ñoo ñu maar ba génn ci mbedd mi ba nga xamante ne ni affaire bi ëpp na leen loxo ñu génn di kërti kërti di daw di ut fii ay somme yu ñuy dugal kat di taaba taaba te réew aussi kenn du ko yoree noonu. ay accord boo ko signé encore une fois da nga ko war a respecté loolu. pour man sax euh, dafay dévaloriser sax euh, gëdd ak euh, président de la république bi nga xam ne nii moom moo signé woon ay accord ak jàngalekat yi ko ak li nga xamante ne nii mooy waa kër docteur et puis taxaw wax ci kanamu ñëpp ni leen ce sont des mhm. donc ne serait-ce pour ce point rek loolu kenn mënu leen a baal dara et puis du génn ci table yi teg ay 69 milliards loolu dafay aiguiser ay appétit léegi yeneen secteurs yi nga xam ne ñoom itam dañ leen yoreel mais dañ naan ñun tamit nañu jug ba am na ñuy jóg ñu ngi leen commencé laaj loolu nekkul politique boo xamante ne dafa baax nañuy am politique d' di gàttandu ay conflits yuy ñëw su ko defee ñu mën ko régler. Mhm. mais nii ñu ko bëgg a nii xadi du sotti te njàng mi ak njàngale mi ngi nii tey su matin maa ngi dégg benn inspecteur d' di wax ni euh, li ñu perdre ci ay quantum horaire bariwul xam nga ni xadi loolu ñu baal ma ci kàddu mais c' est observé nga waxee noonu loolu tamit dafa nekk lu doy waar. Mhm. nañu wax ak nguur gi instant bi béy way na mbuus nañu dellu ci classe yi. bu ñu delloo ci classe yi ñu sauver année bi su ko defee trois mois yi des. Mhm. ñu weñ loxo nguur gi jël ñëpp en témoin te ñoom itam jàngalekat yi tamit am na lu bëri lu leen parents yi di reprocher mhm. nañu bàyyi aussi politique bi ba mu amee ay politique yu bokk ci waa APR am ay politique yu bokk ci waa PASTEF am ay jàngalekat yu bokk ci parti socialiste am ay jàngalekat yu bokk ci parti démocrate sénégalais et cetera et cetera loolu tamit xadi bokk na ci li nga xamante ne ni moo sooxe njàng mi ak njàngale mi mhm. nañu bàyyi des fois gouvernement bi ñuy xoj te encore une fois gouvernement bi responsabilité bi njëkk moom la mhm. na jël ay responsabilité bi une fois te nag maa ngi koy wax sànq central syndical yi dañu am tey génn pour wax donte ku ci mel ni Mody Guiro des fois dafay wax ni am na ay négociations yoo xam ne ni dafay am mais duñ ko wax ci kaw nit ñi di ko dégg ci suuf lañ koy doxalee. Mm-hmm. mais nañu génn ngi laay war a suuri wax te itam pacte de stabilité sociale et d' émergence économique bi nga xam ne nii tegoon nañ ko fi pour anticiper pour artu yenn situation yi defoon nañu évaluation bi mais nañ wax parce que Innocence Ntap Ndiaye mi ngi mi ngi jéem mhm. bi daf ko dépassé. Mhm. Ndeye Dimet njiitu réew bi jël na ab décret fixé diir bi ñu war a amal révision exceptionnelle liste électorale yi ñeel législative yi euh, mu nar a am ci diirub juróom-ñaari fan jàpp fanweeri fan ak benn bu weeru mars bu atum 2022 waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Ndiaga Sylla demande électeurs yi ngir inscription ak itam radiation wala sax euh, modification statut bi ñu ngi ko war a Dakar ñaar fukkeelu fa ak juróom ñaar bu weeru mars expert électoral bi dellu siwaat ci boobu boobule décret ñu déglu ko bu fekkee da ñëw bëgg a def demande opération inscription changement de statut demande modification électorale waroo xaar ba 31 mars maanaam da nga ñëw mars def sa opération li tax loolu mooy dafa am lu ñuy wax contentieux pendant bu ñuy def mbir mi xam nga électeur mën na ñëw ci commission bi mataloo président bi ci boppam yoon dañu ko du wax kese da koy bind wax la lan moo tax moom jëlul sa demande yoon may na la yow nga dem ci ñaari ñu ay coppiteeg ak ay inscription est ce que jël nañ ko en charge ñu ñëw vérifier ginnaaw bi ñu publier liste yi à partir du 17 avril contentieux dafay ubbeeku le lendemain mooy le 18 avril mais ñetti fan lay durer ci ngay mën a yow saisir en fait toujours président tribunal d'instance bi bu fekkee ni par exemple jëluñu sa en charge sa demande bi nga xam ne alors yoon dafa wax ni tribunal boobu cette fois moom may nañ fan mu jël décision groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance ñoom li ñoo xamle mooy défi bi gën a mag euh, bi ñu am mooy ñu am juróom-ñetti millions yu inscrire ci fichier électoral bi bu ñu sukkandikoo ci Babacar Fall di secrétaire général bu euh, GRADEC mi sekub waxtaan ak non Nanko ko euh, ci jamono ji fichier bi li ñu ci ab moo di juróom benn millions yu inscrire mu daal di dellu siwaat itam ci distribution carte électeurs yi nga xamante ne moom la war a defar muy beneen défi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ñu non ko ɓaxay ko mel na ni mbir yi door na révision exceptionnelle di mbind bi ñeel élection législative yi ñu jëm dees na ko amal diggante juróom-ñaari fan jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu jëm bu ñu doyloo waa GRADEC di groupe de recherche ak appui ci wàllum gouvernance participative ak bonne gouvernance défi bi gën a mag mooy fexe ba yegg ci juróom-ñetti million doomu aadama yoo xam ne dañuy bindu ci fichier électoral bi nga xam ne saa si ñu ngi ko xayma ci lu jege six millions six cent soixante mille inscrits Babacar Fall di secrétaire général bu GRADEC di ci yokku yi waroon a bindu ci révision bi weesu te ñeel élection locale yi ñu ngi ko xayma woon ci benn million ak ñaari téeméeri junniy ndaw waaye ci mujjanteel bi lu jege ñaar téeméer ak juróom fukki junni ndaw rek ñoo jot a bindu waral ba secrétaire général bu GRADEC di ñaax kilifa yi ci ñu jël mbooleem matuwaay yi war ngir mboolem ndaw yi nga xam ne daañu am fukkaat ak juróom-ñett fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm ci ñu mën a bindu ci révision exceptionnelle bi lee bindoo ba noppi itam waa GRADEC bi bindu ci liste électorale yi mën a jot seen carte électeur ci fàttali bokk na ci jéego yi ñu war a teg ngir dem ci élection législative yi di fixe koppar gi ni laaj ni caution waaye itam arrêté bi jëmmal anam yi ñu war a amalee parrainage yi muy ay jéego yoo xam ne bu ci ne dañu ko àppal ngoog Ndeye tey nan la ñu war a mën a def ba li ñu daloon ci local bi maanaam lii mu ndaw yi ñu bëggoon ñu inscrire mu néew lool bu ñu ko mengalee ak li jotoon inscrire. waaw xam nga euh, ba pare ma yokkal la ci itam. Mm. ay commission administrative ñu yu ñu def ci ay domicile privé xadi ñu jël kaawu Linguère. Mm. mu am ay manquement yu bëri yoo xamante ne nii gisoon nañ ko. Mm. finalement da ngay dem ba doo comprendre parce que ce sont les mêmes pratiques qui à chaque fois wax ci mbirum inscription ba ci aussi tamit retrait des cartes d'électeurs ni yenn localité yi ci mel ni Daara Jolof euh, wax nañu ni foofu am nañu bind ñu bari ñoo xam ne ba ñu déggee ni carte yi génn dañu dem gisuñu ñu seeni carte maintenant nag